Ousmane Sonko dina bëgg ci élection yi am déet loolu rek moo jaral laaj ci ginnaaw nag ci jeudi bi fi nga xamante ne moo di ca fële xamoo di ca Ziguinchor ñu war fa amal nag xaar ba xam nag ki nga moom moo di Ousmane Sonko daal dina bokk ci élection yi daal am déet. na moom mii di Ousmane Sonko daal ñëpp jàpp na ne daal instant bi daal du bokkoo rek ci li xam moom moo di élection yi loolu euh, ñëpp rek yaakaar ko mais. patriote yi moom lenn rek lañu gëm mooy Ousmane Sonko muy neex muy naqari day bokk ci élection yi présidentielle yi 2024 ndax patriote loolu lañu gëm te loolu rek lañu bëgg ndax bi tribunal ba Ziguinchor moom daal ci jeudi bi rek la wala euh, jox ak yelleef ki ama di Ousmane Sonko dakk kay jox wala di ko jox daal dina xaar dina ëpp suñuy gët ba xam daal fan lay mujjee rek Ousmane Sonko dina bokk am du bokk